mbokk yi salaamaaleykum wa rahmatulah ñu ngi fii nag euh, ci pikin buntu kër mbër la ñu nekk buntu kër Ama Balde pikin lañu nekk waaw koñu Ama boo xoolee xale yeeg mag ñi yëpp signe de déception moo fi am dañu am déception dañu am leen naqari xam ngeen xibaar bi Modou Lo euh, mënatul bëre ah parce que dafa amee. blessure choc boo xamante ni yóbbu nañ kay di moo tax xale yi yëpp ñoom ñëpp am nañu leen naqari xale yi am na ay kàddu yu njëkkati mais ngeen jéem a xool entourage mbër bi ses proches ak waa Pikine ñoom naka la ñuy jëlee information bi ah grand nan nga yëgee information bi kaay fii noo yëgee xibaar bi ak. non Ama Baldé. taxal ma teel la waaw. Ama Baldé moom dafa dafa tegu si yoon quoi. si yoon rek la tegu Ama Baldé dafa tegu si yoon te Modou Lô xam na ni moom bu bëree Ama Baldé dina ko da dina ko dina ko yóbbu ardo dina ko dina ko yóbbu ardo dina ko dóor dina ko daan lu wóor lu wóor fa laa ko teg Modou Lô nag Modou Lô nag Modou Lô nag moom xam na ni Ama Ama moo ko ëpp doole moo ko mën lu muy def lu lu kii physique bu mu def ki Modou Lo Modou Lo attanu ko ah Ama bale Ama Baldé nag mu ngi si yoon te Ama Baldé mu ngi entraîné entraîné dafa entraîné bo entraîné bu met te xam na ne moom Modou Lo te Modou Lo Modou Lo bu bëree bu bëree woon xam na ne Ama da koy daan te xam naa ko barke alxuraan kenn da koy daan Ama Baldé la ñoo te te te Modou Lo te Modou Lo dafa yambar Modou Lo góor jigéen la xam na ni moom bu bëree woon billaay ama mooy loolu dina ko yóbbu ardo eh, eh, du dara ama moo mën moo ko ëpp doole wër na yàlla a ver ama bala la ragaluñ loolu la dañ sama piega paaro tàpp dañ lool mu nekk bis bu nekk est-ce que bis war na mën diisati ci kawam ba tax muy daw. waaw mais moom la rek moom la rek lu mu def rek moom la ñun daw ñu rek ñu ngi fi pare nañ pare nañ ci lépp saa yu pare da pare nañ affaire bi ama bala la tapatuñ loolu bu dee bëjëf sa wan boon ah moo koy déranger xolam day bon sa jur mais dëgg loolu. loolu ngeen koy yëgal. su paree rek ñu pare nañ de. dàpp nañ lool wax. Ah, ah. kon yàggatul yàggatul laaw. signature bi naan ay Ama moo ko gënoon bëgg signature bi moo ko gënoon kii fekk lépp Ama ngi toog dëgg la nag Ama yëpp moo koy dérangé xam na lan la nit bu dee da ngaa dem ba mënatoo bëre da ngay delloo avance xam ne carrément mënatoo bëre moo gën ay sama loxoy mbet sama loxoy mooy metti di wax lu kenn xamul xool booy yi booy yi nii yéen di ngeen daw Modou Lo yéen kenn du daw Modou Lo fii Modou Lo mais mais garaawul mais man sama xol dafa neexul quoi. bilaay. grand c'est que man xool ma sama tenue laa sol maa ngi doog a wàcc mais dama wàcc ñëw ba si koñ bi man sax dama doon laaj lu xew ñu ne ma Modou dafa daw bettu ma woon nag si moom ndax heure bu ñu ko jekkoo mu def loolu amaan na nag wuñ ko dañ kaa mën xam nga mën ak jekku la gars yi di jaawale barki Serigne Touba Mbacke su toogee 10 ans doog a nangu combat bi barki Serigne Touba bu ñëwee Ama da koy daan billaahi Ama du sax moromam gaan billaahi walaay taalaay nice. ne Modou Lo dafa daw laa la wax signature ba ba ko Ama songee ba ñëw taxaw ci wetam la fit wa dem waaw dafa daw xamoon naan day daw nag ñun gaynde lañu ñun gaynde lañu waaw dafa ragal xamoon na xel ne bu ko Ama jàppee mos jeex na xam na ko ama xale bu tuuti la te am na ñaan ak ndey am na ñaan ak baay ñun ñu nekk ci koñ bi ñëpp amul kii amul kaa ñëpp ama jàmm la ak ñoom ak salaam ak yiwu yàlla waaw kon nag Modou bu yaakaar ne daan ama yàq na pàlla xam yàq na ah? ba gis ne Modou Lo dafa daw combat ndax blessure la ñu wax accident ba mu accidenté woon accident day tapale day njublam day njub la amul xanaa xoola signature xanaa xoola signature bi naka am rek dafa na ñokket jóg ba tiim ko ko nii mu rap rap naan nii di lox waaw di lox waaw ñemeetul wax xamatul lu muy wax xamat mënatul wax kaddu amatul benn kaddu bu mu ñemee wax foofu nga xamee ne ama ah, gañe na ko e eh, dugg leen xarañ ngay waxal de. xarañ xarañ ngay waxal xarañ bés boobu na du xarañ bés boobu xariñam réer na ko na ko xariñam boobu réer na ko ñun suñu bés moo taxaw sël bu sël bu ndaw moo taxaw màgg na léegi màgg na léegi. yaay booy. waaw Modou Lo mu ngi lay seetaan mu ngi jàkkaarloog yow. lan nga koy yóbbante. ma ne Modou Lo laa wax xam naa fa muy sangoo waaw xam naa fa muy sangoo man maa ngi dëkk Peykouk séeréer sama yaay fa la nekkoon ñoo bokk maak moom fa ñu nekk xam naa ko bu baax a baax Modou Lo xam naa ko. waaw bu tag bu takkoon fii dem ba ñëw taxaw mbaxane mi fii lay ñëw. mi ñoo ko moom dana ko génne nag. dana ko génne. tous dina ko génne. loolu leer na. sant yàlla rek. waaw lii sant yàlla rek mooy loolu. ah moom koo xam-xam ne yaax yàq laam. nante la ak sëñ Touba Mbacke xam nga xëy na nag seen xel moo toll foofu waaw. heure bu ñu ko bëree dañ koy daal boo dafa wóolu boppam parce que maam Cheikh Fall barki alxuraanu karim billaahi wallaahi wa taala xëy na xelam moo toll foofu mu yàq làmb ji li mu doon def yeneen mbëri ak bii bokkul billaahi wallaahi wa taala gëmu leen blessure bi ñu wax non non waxuñu blessure kenn ñaanul yàlla mu blessé bu ñu sañoon day am wér gu yaram xam nga ñun ñëpp ay sénégalais ne ndam li sénégal lay des du dëgg waaw bu ñu sañoon day am wér ñu ñëw ñu bëre si jàmm ñu daan ko si jàmm mu ñibbi mais xam nga. non non non même pas jàppuñu ko sax xëy na xelam moo toll foofu rek mooy lool mais heure bu ñu bëree heure bu ñëwee en parrain daa mënul jaar booy bi fenn loolu la rek. mais confiance bi ngeen àndal. non ah daa gëm boppam ñun dañ koo xam depuis mbabat ba tey billaay wallaay daa gëm boppam. parce que sëñ Touba Mbacke kan la xarañ la mais booy bi du raf lijjantiwu ko faalewu ko. man benn yóbbante benn yóbbante rek laa koy wax lu mu lu mu toog toog toog toog lu mu yàgg yàgg yàgg même su ñëwee la woon fooy woon rek lañ koy def mu la yàlla xam na ni su toogee dix ans dañ koy daan su ko neexee nag na wax daa blessé wala ñun loolu yëpp intéressé wuñu xam nga ñun lan moo ñu intéressé bu ñu sañoon mu am wérgu yaram bu baax waaw ñaanaluñu ko lii kenn ñaanal ko même même sa pire ennemi sax doo lii bu ñu sañoon yàlla yàlla yàlla ko yàlla yëpp de jàmm xam nga mu ñëwaat mu bëreeg moom ñu daan heure bu ñëwee Ama da koy daan billaay wallaay saa yu bëree Ama da la suñu waaw parce que le treize dañoo naroon dem jël suñu ndam ñu ngi war a signature le samedi bi baas samedi waaw war a jaakaarloo xam na nga bàyyi ba presque un mois ci combat bi nga déclaré blessure ñun nag xamuñu quoi ndax moom mooy mbër mi moom moo xam moom mooy mbër mi mais ñun xamuñu quoi lii rek dañoo métti trop est-ce que tamit moom nekkul moom lii la si bëggoon comme nii seen yaram dee nii. waaw non ñoom moom mënuñu jaar moom loolu loolu mënuñu kii suñu moyen heure bu ñëwee laa ñun jàpp ne Ama da koy daan. billaay wallaay. heure ñu bëree Ama da koy daan. ñun suñu xel loolu la. mais est-ce que bëreet bii ngeen am nii dina yombaal pour ngeen am ko. ñun man da ngeen de billaay wallaay découragé wuñu ñun kii nañu am kii mooy suñu fierté mooy fierté pikin moo yor drapeau bi kon nu ko waxee. parce que Serigne Bamba moom moo yor drapeau xam nga PS bi Pikine daa nekk ci crise Eumeu Sène xam nga ñaan ñu koy yàlla suñu sañoon làmb ji mu daan booy ñaar gis nga nu mu demee noonu moom moo war a ñëw jël relève daan Modou Lo xam nga gars yëpp nekkaat si jàmm Pikine nekkaat si jàmm yaa gën a xam. sa yaram dafa sumé nga moo tax nga wéeru si. rendez-vous rendez-vous bu ñu bëree dañ koy daan. yaa ngi ki maam Seera Fall. non sama yaram ci nouvelle bi deful deful la déception nga waaw. waaw yaram bu suméeku rek billaahi Modou loo ñëwal dañ lay daan dañ daan jël bu rafet ama xola dafa pare ama xale pare war na yàlla pare. waa ji dafa blessé mais yéen nanguwu leen blessure. blessure waaw mais dara dina wér ci jàmm bu wéree rek bu ñëwee ñu bëre loolu dara dafa blessé. na wér ci jàmm ak salaam rek. def choc épaule bi mu am blessure. mu am blessure dina def opération. dina wér incha allahu rabbi dina wér su wéree bu ñëwee ñu daan ko daan bu rafet waaw ñu roi bi lañ soxla. al saagay booy waaw naqar nañ trop moom gars yi neexul kenn neexul kenn waaw troisième année bu ñu war a ñëw ñu bëri bëri ci fulla muy daw mais garaawul ñu ngi koy xaar yàlla na wér ak jàmm yàlla wér ak jàmm ak salaam wér ak jàmm ak salaam ñu daan ko daan bu rafet waaw affaire yi man li ma ci jaaxal mooy saa yu ñu jàppee dat Modou yàq ko ni mu koy yàq ni mu koy yàqee mooy que ne moom benn instant dina lay wala mu def ay débat débam ba bii moom dafa gën a leer mais loolu fu fan la ko teg na ñëw bëre. blessé lañ wax dafa def choc France blessé ñëw àndaale blessé mais choc boobu keroog bi muy toog bi muy toogaat plateau moog waa ji mënoon na ko mënoon na ko déclarer avant mu ñëw bu ko defee ñu xam ne choc la moom bu ko defee mu toog benn yoon bañ a ñëw bañ a egsi mais mu ñëw ba egsi ba toog ba ñu jàpp ba programme ba lépp nekk ah face à face des rek mu dawaat génnaat. mais Modou moom tappale yi am na am na am na am na am na fu mu am na loo xamante ne mooy loolu bu ko nanguwul ba léegi ragal la moom actuellement moom fiig la moom góor jigéen buñ koy wër nañ ko jàpp amul benn boobu ngeen jekk loolu non parce que man loolu sama xol moo jeex ñun dañoo bëgg làmb ji soxla woon ko yaa ngi dégg sunu sunu sunu sunu sunu mbër bi ñu am musul ñeme booy bi ñeme ñeme na ko benn ñeme boo xamante ne gëmloo ñu ne moom bu ñëwee ak moom da koy wàcce mais moom loolu waroon confirmer bu ñëwee bu wàccee booy bi na ñu xam ne moom champion la mais moom li muy teg nii teguwul fenn daan daan na su daan na mbër bi gën a mag booy bi ñëw taxaw mais na ñëw dëggal loolu bu boobaa ñu nangul ko champion moom mais dafa ragal tapet la lii mu def moom affaire fiig la tegu ko fenn luñ koy wax mooy na xoola na na ñëw am fullaam ak faydaam teg boppam bëre comme moom nee na champion la te champion la bañ bañaluñ ko ko de mais champion bi mi ngi bëgg a weere moom pour l' instant nii weere na sax ba daw génn bi muy def ba na ko bàyyi na ñëw bëre. na ñëw bëre. dafa wala moom bëggul booy bi jël roi bi bokk. dafa soxor daa soxor soxor la. mais roi des bi moom moom dawee leer na da koy joxe rek mais na ñëw jox ñu ko te ñun dañ koy wàccee ñun bu ñëwee dañ koy daan. amul lu muy wax ba duñ ko wàccee. parce que ñun parce que ñun parce que sunu mbër du ragal te xamante nañ ñoom ñaar bu baax a baax a baax booy bi am na lu mu koy waajal ba ba ba léegi. xam na ne loolu ñëw na te mat na. Mm-hmm. moom bañ na ba sonn dem na ba xam ne léegi fii lii moo fi sës benn instant bi mu ñëw war a bëre di ruux. Luc Nicolaï nag xëy na da koy jàppale waal ci pet parce que benn instant man li ma gis loolu la. Luc da koy jàppale parce que jàppale bi mooy. waa ji day bañ. waa ji day bañ mu koy jàppale pour lan mais na ñëw sëgg bëre. booy bi booy bi booy bi dafa xoola def na ah, léppam. Ah, chaque jour mu mu waajal dañoo waaj ba sonn ñun dañoo xaar a xaar a xaar ba xaddi. ñun làmb dañ cee bëggatul sax dara fi mu toll nii ndax moom daf ñu découragé loo soxlaatuñ sax làmb. mais est-ce que nekkul moom mais moom bu ko defee dafa sàkki ragal la tapet la. na ñëw bëri ñu na ñëw bëri na ñëw sëgg bëri. Modou billaay wallaay dara jotu ko blessé defu ko su ñu ñëwoon indi suñu médecin tegal ko suñu médecin mu xool ko du gis du gis ne dafa gaañ dara jotu ko. mbokk yi gis ngeen ah euh, déception la euh, désolation euh, muy xale yi nga xamante ni ñoom ñoo dëkk. koñ mbër bi mbër baa ngi sama euh, kër gaa ngi nii sama ginnaaw mais bi ñuy def euh, interview yi ak li nga xamante ni moom mooy euh, waa koñ bi di leen jël mbër bi romb na sànq ak beneen oto ba génn dem. léegi nag ñoom dañu am benn réunion d'urgence boo xam ne ñoom dañ koy def ci seen biir après ñu door a convoqué benn conférence de presse boo xam ne presse bi ñuy ñëw ñu wax mais daal li ñu mën a wax rek mooy déception la am nañ lu leen bett trop. ah am na ñu leen bet trop dem nañ sax ba utiliser ay mots <laughs> yoo xamante ni waa ji tàppet la ak yeneen ak yeneen ak yeneen kon loolu la parce que lu ñu doon xaar la ay ati ati at tey mu ñëw rek affaire bi euh, dal ni seen kaw affaire bi bett leen trop mais bu fekkee champion dafa blessé euh, ñu koy ñaanal wérgu yaram tamit mbër euh, ki nga xam ni moom mooy Ama ñu koy naan courage na muñ léegi nag ñu xool rek ban anam lañ koy defee daal en tout cas daal en tout cas daal naa man ma xamal la benn affaire. man mii sama bopp nii man ah, ah voilà loolu rek laa ciy wax man mii sama bopp bettu ma wër na yàlla bettu ma man sax dama naan sax moo ma gënal ndax fitna bi ci amoon fitna bi ci amoon dama demoon ba naan sax nañ ko bàyyi parce que sport dafa war a di boole bu boolewul rek leneen la te fitna bu ci am rek dafay nekk loo xamante ni man du ma ko bëgg ci sport surtout làmb kon mi ngi noonu euh, rendez-vous prochainement ak yeneeni xibaar ci diggante Modou ak.